dee mokkal naa maa jug lii laahi di sant Bamba ñuy jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew muy waa kër Serigne Touba yi fi teew di waa Mbusoobe xam naa wax ji du gudd du bari li ñu leen war it def nañ ko muy jàng njàng mu rafet ba tari tari bu rafet comme ni ñu ko dégloo ñun ñëpp yaakaar naa mboolem waajur yi fi teew dégg nañ tari tarib bu Bousso yi nga xam ne mokkal na tey ñu leen ciy ndokkeel bu baax a baax a baax di leen wax ne moom itam jaar na fa ay moroomam daan jaar muy bi ginnaaw bi ñu ko dégloo fii ay kaamil yu baree bari oustaz yi seet ko mboolem jàngalekat yi ci daara ji seet ko ba seede ak mokkalam ci la dem ca ngaabu ci daara Cheikh Ibrahima Khalil nga xam ne ñun ñi fa lañ génnee moom itam mu seet ko ba def ci moom ay seede wax ne na seet na ko ci ruq yu baree baree bari waaye daal taxawul gagut yàqut ba moom moo ko defal taqdir mumtaz ci euh, shahadaam kon alquran jooju ñu ngi ñaan mu sax ci dënnam te mu jëfe ko te màgg jariñ ay waajuram jëriñ islam bi yëpp jëriñ umma bi yëpp macha allah. ñu wax leen ni soxna Xafsatu di soxna Abi Bousso moo mokkal tey alquran waaw lu war a mën a nekk la ndax euh, alquran la cosaanoo waaw boo naan soxna abi fan mooy cosaanam jëlul nga naan jolof jëlul nga naan fuuta danga nga naan alquran rek muy delluwaay ba ndax maamam yépp macha allah ku ci nekk yàlla rafaatal na alxuraan ba nga def ci jéego yu am am solo ba ci way juróom yi ko teewee macha allah ñëpp ñu am taxawaay bu jot bu mat ci alxuraan lañ ay jaleen ñu juub waayal soxna abi soo tey de mokkal na yow de jaarama yamin xuraan ji ji seet na lool dégg na lool soxna abi buso yamu de ñoo ngi sant yàlla tey moñu moom te am na pay jàng alquran rëy soobu leen ci bañ di lay ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa kii fi nekk di sëriñ Omar Bousso moom sëriñ Modou Xari Bousso moom mi nga xam ne moo jur waajuru soxna abi mii di soxna Bali di kilifa ci suba ba léegi mu nekk fi te loolu alxuraan rek moo ko jaral ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu kilifa yi fi teew yépp ñi fi teew ñépp ñu ngi leen di nuyu te di leen sant ci teewaay bi ndax jot gi manqué na lool xat-xat yi it na ñu ko waykatu arab bi di waxe rek Euh, maa ngi jiital sama jàngalekat ki may jàngal ci sama waajur ndax moom moo ma gënal ndax day yar sama ruu te sama waajur dama yaral sama yaram te yaram ci suuf lay mujj yéen ñi yar ruu nag kon yéen a jiitu ci ñuy defar askan wi kon yàlla leen yàlla fay te taxawu leen ci barkeb alxuraan bi nga xam ne moom moo am payu gannaaw loolu yi ñuy sant euh, kilifa yi ñi nga xam ne ñoo jàppale soxna bi mii ba mu mën a wattu téere bi am bu baax a baax a baax lii rek lañ lañ lañ lañ ko yéene woon muy mu mokkal alxuraan mokkal alxuraan nag ab tàmbali la boo xam ne yow soxna abi yaag ñi nga nekkal yéen ñooñu di ay di mokkal yéen ñi ñi leen wër na ngeen xam ne ñi leen jàngal bañ mokkal ab tàmbali ngeen am ci door seen àddina ci lu leen di jariñ kon war ngeen a lu ci am xam-xam bu ko sàmm par ngeen a góorgóorlu it ci fexe ba taxawu seeni i waajur fexe ba taxaw it ñi nga xam ne ñoo leen doon jàngal kon ñi ngi tënk kàddu yi foofu. yi nga xam ne moo fi am tey lii ci war a wax yëpp wax nañ ko lii kii doon way li mu wax rek xol si xol yëpp sedd nañ sedd nañ loolu mu ne wees suñu daal suñu xol sedd na guy noo ngi sant Serigne Abdoul Ahad nag bu baax a baax ci taxaw bi nga xam ne taxawu na ko njaboot gi. nun ah, de li ko dénk waxtu yàlla nag suñu xol sedd na ci baax rëcc wul li ñu ko ko doon dénkee ndax wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni nga xam ni moom la taxawoo njaboot gi de sant nañ ci baax suñu xol sedd na ci bëgg nañ ci ñoo ngi ñaan yàlla dolli ko dëral taxawaayam ba li mu bëgg ci njaboot gi lépp suñu borom def ko gone yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi wattoo alxuraan yàlla na leen yàlla def ñuy gaañ taxu alxuraan te ñoom itam may leen yitte ju mel ne ji may soxana si ba fay borom di mor jàngal ay seeni njaboot aw ba ñu wattu ko ni ko ñuy wattu mu doon luy wéy loo xam ne lii noonu la ko sëriñ bi suñu xol sedd na bu baax noo ngi bokk yi fi teew yépp suñu sedd na ci lool te suñu xel rek dal na lool lool te gën naa li sunu yaakaar bu baax a baax ci yaakaar yi nga xamante si nii moo taxoon Cheikh Abdou Lahad indi ko fii ñun ñi nga xam si ñooy wàllu soxna Bali ñu teebal leen fii ñëpp sunu xel dal te sunu xol sedd na bu baax baax ci taxawaay bu rafet bi nga xamante si ni moom la waa daara ji taxaw ci kilifteefu Sëriñ Abdou bu Bousso mi waajuram mu taxawaay taxawaay bu rafet rafet boo xamante si ni diiru ba mu xàmmeeg léegi lépp lu mu war ci moom mi ngi koy def te lépp moo moo taxaw ba lépp aksi fii kon nag ñu ngi koy sant bu baax ci lum yëg ak ci lum yëgul lépp lu mu ci def ñun la ko defal ndax ñun la war ñaan yàlla kàttanal ko te kàttanal eh, ay waajuram ak mboolem ñu mu ànd ak ñëw fii ñëpp suñu mar moom bu si ba wax rek doy na sëkk ndax suñu mar mooy kilifa fii xanaa dañ doon jotli suñu sant rek. ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته فالنار واجعله لنا حجة يا رب العالمين